Euh, ñu ngi ci diwaan bi Darwin City bi euh, ñu ngi woon ci Salot Sujonde ah xadi Salot Sujon ci Arafra ba tey ci bindoo Adja Khady ci page cent douze ci man de soixante-deux ci ñële téere yu bees lan la Baay wax mu ni wasixtu maahil kufri ahmada haaziri muhammadinil moxtaari xayril maasiri wasixtu dëgërloo naa man Ibrahima Ñas bi maahil kufri ki nga mooy ifaasi kéeféer kan ko kan la ahmad mooy ahmad haasiri mooy ki nga xam mooy muhammad al yi ki nga xam lay tan ci xalaayik xayril al ki ka xam mo gën ci àndoo yi ki gën ci àndoo yi kooku day laa lo man Ibrahima muhammadin al Taha wa bihi ma fawqa al akabir Muhammadin moy kuñ sant ci maqam ci martaba ma al Mahmoudi moy kuñ sant ci taxawayam taxa mooy taxa mooy euh, quatorze wa ina na kamande alahu bi maa ngi nekk ca mbëggeelam ga maa istu fekk maa ngi dund fawqal akaabiri maa sut li ku doon ponkal ponkal yépp man Ibrahima Niass maa leen féete kaw te mooy dëgg de te billaay ko ko xam-xam ne mu am léegi nag li nga xame ne moo sut kan mooy kan mooy Muhammad tey Mahmoud kan la waxal ma ko balaa nga ci wax balaa ngay dugg kon day maa ci moom maa tim ponkal yëpp dégg nga ataa xaaqiban nooran siraajan wa rahmatan rasulan aminan fi butoonin wa saayir ataa dikk na xaaqiban ca xaaqib ñu ne ca mujj te mooy ca gannaaw moo féete gannaaw lépp tëstan mooy mooy mooy tëstan xam nga féete gannaaw bu ne àqiban boo ko déggee mooy nga moo dikk ca mujj waaye moo fiite gannaaw lépp nooran mooy leer siraajan mooy làmp rahmatan mooy ndaw mu yërmande rasoolan ndaw la aminan kuñ wóolu la juróom yii moo ko doon fi butoonin ca butoon ya ca butoon ya déglu ma de ca biir ya moom dong moo fa nekk ndaw wa saayir activité moo fi nekkaat ndaw lii bañ ko dala wax ba tey parce que dañ ko mas nañ ko kii moo tax soo ko xamul ba nga bañ ko boo ko waxee te xamuloo ko doo ko mën a firi waaye nag boo demee ba xam nag te dal kutimta fi hadratil haqq foofu nekk rasul fi butoon yi lay sa al muxtaar yu dir ko xamul ne buñ ne rasul haqq moom dëgg dëgg dëgg dëgg benn rasul moo nekk rasul haqq ba moom dem ci xaqaayiqee ba mu dawalee xaqaayiq nag ci butoon mu ki ci yi nag nekkaa rasul benn rasul ci bi ci kaw ndax xam nga li ma te gëm nga ko mooy li wax ah Khadija ah dégg nga moo tax ñu ne ko xuruusul xaqaayiq mooy kuy tijaane soo xam soo gëmul li bàyyi wax ni kon doo tijaan mooy xuruusul xaqaayiq mooy mooy aynul maarif jëmi maarif ci martaba yi kon biñ dikk ci xaqaayiq moo fa nekk rasul biñ dikk ci maraati moo nekk rasul moo tax nag aminan bi bu tóonin ca bu tóon yaa wasaay nag xam nga lu tax bu tóon ndaxte ba xaqaayiq bu tóon nañ nisabul xaqaayiq yëpp ay buttoon lañ biñ dikkee ñoom nag ba pare nag bu xaqaayiq moo dajale nag salaatu ak salaam génn nag da nga maam génn daw ak daw ci biti ah laa la wax de fii bu toll nii wa saayidan xabdal ilaahi mubassiran basiran nasiran lil buqaatil jamaahiri ata dikk na saayidan mooy témoignage moo seede ñëpp wa wa masoodin dégg nga alxuraan ko maa ngi gi jë seede ba ak kañ seede ka te kenn la kat mooy saayit muy masuul moom maa ngi gi saayit ma ndax lii nit mas na koo xalaat dañ foog ne saayit ba diw la masuul ba diw la déedéet moom mooy saayit muy masuul mooy moom ne moom mooy sédd mooy séddale kat bi te moom lañuy ñuy séddoo boo demee ci ci kan ci gannaaw loolu wax moom mooy séddale te moom lañuy ñuy séddoo man ngaa sédd man ngaa kudul biti kudul seet ku nekk ci biti mën ngaa seetle waaw la ñuy seetle nekkul ndax bi mooy biti kon nag biti mooy séddoo moom lañ moom la séddoo ah kon nag wax saa yi du kon nag bàyyi na atta dëkk na saa moo nekk sa seetlu de xaabir ilaay kii mooy jaamu laaw laaw amul benn ñaari jaam benn mu basiran mooy kuñ dugal nasiiran basiiran mu nekk nasiiran moom mooy mu basir moom lañ jox mbégte yëpp mu dikk nag taxaw nekk basir bégal ñu baax ñi nasiral ñoo xamante mooy xupp ñu bon ñi ah lil buqaat yi ñan lay waat lil buqaat yi ñi xam ne ñooy saay-saay yi aljamaahir yi nga xam ne ay mboolo mboolo yu saay-saay yëpp duñu dikkee moo leen waat ne hee bàyyi leen seen caay-caay gi wala ma duma leen wala bu ngeen mu dee dugg safara rasulan ataahum daa malahimi daiyan ah, umiyan ah, haba maalam tëjun fi dafa dafa dafa rasul mbir moom ndaw la ataahum ñëw ne bil malaahimi ci yàppante yi mooy xeexoo bu ñu ne malaahimi ci arab rek mooy rayante ñëw na ca rayante la ci ñi nga xam ne soxla rayante daa yéen muy oox dugg leen ma eh, dagg seen baat umi yéen mooy koo xam ne génnu kër ne yam ak bàyyam te moo ëpp xam-xam xabaa may na may nañ ko moom mii ما ماي غو خامني تجي نبوغن في دفاتر تي بيتيري ماي غا خاني مولا كو ماي قاديو تي تيري ماي نين كو ماي غو خامتيني قاديو تي تيري موك تجي كو تيري ا سباني مقفال مصطفال بدرو نعمتن سفع البرايا في الكتب دوائر سباني جابنا ما من ابراهيم ما بايكو لا جابو المقفا خنا كي خنا مولا نيباي خاني kookoy kan almustafa ki xam nañ ko tànnoon min qabli aadama bàyyi kooku kan albadul xanaa ki nga xam ne mooy weer wi lu ma jàppee nii amaataan xéewalam ba teraanga ma jàppee na ku ku ku ëmb sa sànqal ëmb sa man nag dama ëmb lu ëpp moom xéewal moom <laughs> man moom la ma jàppee de nii mata safiul moo tin bindi fi mm-hmm. fir xutoo bi ci problème yi addawaay yi mboolem problème yi nga xam ne ñooy def tournée corona bi du jeex mukk te du ma ko ay corona tokal yalla ñoo xal xal corona tokal leg way ah te nak alhamdullahi rabbil alamin dal ñun dal ñi ngi ñaan ci corona gisaguñ ko gisaguñ suñu bok bo xamanteni xamaguñ ko bok bok ah ku bok ci daayira bi daara ji xamaguñ ci kenn ko xamanteni ñu nangam nangam be kon nak yalla ñi ko yalla takal ci barki yunus bi sallallahu alaihi wasallam laqallaahu laa on faqo an sado si bis baat bu naqare fiw maa ngi giñ ci yàlla ñeel maa ngi giñ ci yàlla ñeel la man Ibrahima Niass laa an faqo du ma jóg mukk asdo de joro bi sikri tudd yonent wax ca kaw moo tax bàyyi nangul ko xen gàmmool ko nit ñëpp dañooy taalif bàyyi taalif ñu gàmmoo ko soo moom moom mooy gàmmal boppam ba ba bët set mu jiite kaamil ba mu jiite burda ba jiite kaamil ba ba ba muy ba bàyyi ba ba muy génn at génn àddina kenn du ko gàmmal ak lam mag a mag a mag am doom yi mën a gàmmoo jox dëgg-dëgg yàlla kenn mënut a jël place am neexut da jël place kon nag man dama jóg as doo di joor bi sécurité ba koo moom yonent bi alxorotu bu ngu alxorotu saa boo mooy sama waaj wóotil ka loolu nag yàlla jox la ko Zakaïru moo déggee Zakaïri mooy samay denc man Ibrahima Niass sama coffre-fort ma fa denc lii dong la kat tagg yonent bi woy ko coffre-fort fees tel du ma manqué dara nabiyun karimun rahmatun wa huwa muqimun mubinun sol ala wal ba faqir way dama bëgg kuy wax ci waxi bay na ko wax wax joo xamni ñepp dañu xamni li waxi waxi bay so waji ji tam na nabi ko nabiin solo la liñ ko sol lepp lañ ko sol kër yi mun ku tedd la rahmatul yermane wo wal yonti bi rahatun naflay la soko ko top ko do am ben problème mu mun ko fi sax la fenn mi ngi fi tey la dàngaaral mu biinul biral kat bi sol allah mooy borom kawe yi wal ma mooy borom tiitar yi laa ilaha illa allah ma mas nañoo dégg ko taggee ni yonent bi ah lii lii taggin bii taggi daf di tagginu tagginu gone mukk ah nabiyun karimun rahmatun rahatun muqimun mubinun sol allah wal ma faqari juróom ñetti melaw nga indi ko ci benn wuy arab arab mas woy ah ahidun muttaqin wa muslihun imaamun raofun mujtaba wa huwa naasib laa ilaaha illa dikkaat na de ahidun kenn la yonent bi ahid ahadun ak ahidun ahidun kenn la xam nga ahad ya mooy ahidu ahad ya nag xam nga kan la waaye moom daal moom mooy ahidu <laughs> karimun ku tedd la moom sama waaj muttaqin ku ragal yàlla woo kii muslim kuy kuy defar la imaamun iliman la raufun ko am yërman la mujtaba kuñ tànn la woo moom naasiri mooy ki may dimbale man ibrahima ñas laa ilaha illa kafaani yaasinun muqimun mutaxarun wa sayiduna alxaadil munilul basaid kafaani doy na ma yaasinun yaas yow siin muqimun ak ki nga xam ne mooy ki fi sax mu taxarun koy xam ne kuñ laabal la wa sayyiduna mooy suñ sang alhaadi yi mooy gindikat bi almuniilul basaayiri yi mooy kaa xamante ni mooy may ay mbégte isma fayil mën naa am alif ak laam mu daaf laam alif ah? Ah, kay eh, déedéet man laa ata qaidal quril mooy mi ni saadiqan loo wax yow ah ayaa qa ok ayaa qaidal quril mooy mi ni saadiqan waaw kay ayaa la gis nga waa ji wax ni sama gannaaw moo ma mu ma mu ma mu kii ayaa qaidal quril mooy mi ni saadiqan habiban said sadi sahidan munsiran bil qasairi ha ay ay la ma njëkkoon wax ne boo ci baax baax tey baax xalak sama gémmiñ sax mu tax atta boo tudd doo tudd nag buñ ko seede fene benn tëb ay yaa qaayidal qurri ey yow mi nga yaay commandant bi omat ñu weex ñi al muhaymin yow mi nga xam ne yaa sëpp mbir yi ngay ngay ko dëggu habiban ngay soppi sahidan ngay temoyaas munsiran ngay xuppoo bil xasaayiri ay perte ah yow mii ba tey yàlla yàlla yaa bi nga ko maa ngi dox yow li taram qadiman daari an dala sayuhu abal qasim al mansuri yaa xayra xaaji yow mi ma oo yaa mi nga xam ne yaay xaay bi yaay muhaymin yaay kuddët bi yaay soppe bi yaay seede bi yaay waaratikat bi waaye nga li taram na nga yërëm xaddiman surga bu ñu wax Ibrahim ak ñun daari an boo xamante ni dafay toroxloo dalla sànkun sa yoo xam ne li mu jëf yëpp jëf yi def na de annii la nañ abal xaasin yow mi nga xam ne yaay bàyyi séddkat bi almantor yaa xam ne yow lañ dimbale yaa xayra xaaji yaa gën ci képp koy fekke waxal ci kii nag li annaka yaa mas doo ko xayru musafa in loxoo rutbatun fooqa euh, saratil ak awaqit euh, dégg nga aqaayiri ñu ne ko waaw mu ne mel dañu ko waaw yow lu tax nga wax ne waa ji nga wooy ku ne sant ko lii mu ne ndax li ànd ak ndax yow yaa ma doog koo yokku ndigal ko xayru mu sa feen yaa gën ci ku ñuy tinloo loo am na rutbatun garaat foo ko saraat yi boo xam ne moo tim sang yëpp yow yaa am garaat boo xamante ni tim na sang yi al aqa yër yi ñi nga xam ne ñooy tànneef sang yi nekk tànneef yëpp yàlla may na garaat boo xam ne kenn amu ko ci yow kon su ma la waxee ne waxal ci man kay xee eh, ujaat ña وانا كم mi رأيتك أهلا للوسيلة ساقيا لدى حضرة آه، دنجا لدى لدى لدى الخودي سلطانا ليوم وآخر رأيتك جزنا على يوم رسول الله أهلا يا ميريتو للوسيلة pour جوكو يا وسيلة بو يهود وسيلة كوني براسما براسما يا دونغ يا ميريتو يا بس لا تقول جوكو تشودو براسو ساقيا يا ناندل fan la daal xaw di ca ma eh, aati naa ko kawsar koo joxul kaas na ko naanal ci kawsar du naan ci kawsar ma yéen fuy kawsar nag laa bëgg xam man kawsar billaahi kawsar kawsar xam nga xam nga fi ko nit ñi fa nit ñi nekk kaa kawsar ak kawsar dafay soriyaat kawsar fii boo ci naan fii may taxaw yow foo koy naane ji ndax dañ foo ne benn ndox la ma ko ne boo dikkee ci ka ka acca jàppaleen kaas yi naan naan naan xam nga ñun suñu xel yi moo ñu fotool ne nii te <laughs> eh, kat boo demee ci maam lay xaw ci benn wuy wuy naa ko foo xamante ni kaw sara far la yem mar ci bàyyi moo de mari mar naan bàyyi moo am boo demee foofu da nga ko fekk <laughs> kon nag nga dikk kaw sar xam nga dëgg-dëgg yàlla fay fay faydu bii boo ci naanee mandi mandi boo xam ne dootoo marati mukk amut fii nga yëg ko kon buñ la ko ko weddi xam nga loo ma soog rek ngay weddi waaye loo mos moom ah kooku moom xanaa bu gën a neexaan la ñu di ko waaye mos nañ benn moom premier lëwal moom lëwal moom jot ni lëwal moom <laughs> ku la jox lëwal nag nag de xamal deuxième ngi ñëw de ah <laughs> ah da nga jot <laughs> ah, raaytuka ahlan lil wasilati saaqiyan la dal xaw di sultaanan yow yaay yow mi ci sama bis bi wal aqra tey jii al àdduna bi yaay fii wal aqra bu ñu demee aqra yaay sultaan yow yaay roi fii yaay roi fële hamitan lahu taajun wa haqqan wa qaatiman muqaddasatun ah, muqaddasatu sirin raakiban fil masaayid laa ilaaha illallah hamidan yaay koo xam ne yaa sant lahu koo xam ne am na taajun taaj xam nga tiijaan mooy taaju dëgg dëgg dëgg mooy tiijaan yëpp yow yaa yore kipp bi nga xam ne mooy kipp buur bi yow rek yaa yore buur mbaxanaam buur fa mbaxana nekkee benn yomal qiyaam benn mbaxanaa fay am kenn mooy yore taaj loolu mooy ti mooy tijaan yi yow yaa moom taajum waa xaqan yow yaay xaqan yow yaay xaqan xaqiqa xaqan yaay xaatim muqaddasa sir yaay koo xam ne la sel seen mbur sa sa sa secret yaa war fil masaayir masar boo gis hmm. moo ko war da ko ñoggi ñoggee muy dem yaa war masaayir yëpp hmm. ñu ñoggi ñoggi yàlla nañ xam ka ñu war ka <laughs> xam nga moom boo xamee ki la war rek mu ne ah xam nga moom a baal na la wàcc na la yow du mën a warat waaye soo fi dof doful wala du karoos rek yow yaa war ma sori lay lay ndax ndax lii de li li ma sa ko wax yonte raakiban fil masaayil moo tax benn mutasaayir mooy mooy borom moomu masaayir yëpp moo tax moom ana rajulaha benn góor rek fi nekk fii xam nga góor ga nga xam ne mooy góor gay ga nga xam ne moo yére benn tur góor ga def ne génn góor amee wenn tur te moom nag góor googu dafa am kilifa te kilifa ga bëggut ñaari tur ak ñetti tur mu ne ko indi ma sa biir te jël yële xam nga léegi ci xam nga lu ma doon liggéey ci kii du ma lu ma leen ko wax na lu ma leen ko wax dégg nga xam nga li ñu waroon xalaat damaa bëgg yeneen ngeen xalaat waaw léegi juróom-ñeenti tënk yu jigéen ak benn tënk bu góor waaw ana seen ndey ak seen baay kan mooy seen ndey ak seen baay te am na ndey ak te ñoom ndey baay yooyu ñoom duñ tudd doom yu góor <laughs> bëgg a dee la la <laughs> am ñoom ay ndey ak baay leen jur de ndey baay duñ jur benn doom benn sikkat ah ba la doon ay doomu jigéen rek lañ jur te am nañ ndey ak baay kan mooy seen ndey ak seen baay <laughs> question la de <laughs> dama koy bàyyi question boobu nag ko dañ ko laaj. <laughs> xam ku ma oo nag a ngi nii xam naa ku ma oo bëgg ma ko laaj ma ko amul kii amul ma doo euh, ma ko kii la nu nga tuddee hors antenne amul hors antenne <laughs> ku ma ko wax rek ma ne la waaw waaw nag waaye ku ma ko waxal dama la ko waxal ma xamal ci dara dégg de <coughs> gis de lii raqiban fil masaayib muqafa loxoo nax laa ni baada xiraawatin loo xaataman arjo bihi kulla fàqir muqafa mooy muqafa loo am na naxaraani ñaari dàll ñaari dàll xanaa ñaari dàll bu xam ngam ñaari tànk moo tax xadamaaya xaataaya ñaari ñaari dàll am na ko baa de nga naa moo yore ndàmbol xam ne ndàmbol mooy xet bu ne xiraawati mooy xetu Moussa am na ñaari dàll am na ñaari xet seetal moo tax Moussa nga xam ne Moussa mooy apprenti apprenti Rasulullah dëgg dëgg dëgg mooy Moussa faxlaxnaa layka inabik innaka bil waadi kon Moussa war nañ ñaari ñaari daal seetal yetu Moussa wa ba tey kon Moussa war nañ yetu waaja lii yëpp ko day wane waay rek day wane waaji rek am na ñaari ñaari daal gannaaw ba mu yoree aw yet loo am na xaatimun xat mu ah ñu ne jaaro arjo yaakaaree naa bi ci lu kulla faaqirin bépp ndam bu ma boo xam ne man am naa ko maa ngi ko yaakaaree ci ñaari dàllam yooyu ak yeta woowu ak xaatimam boobu muy ñeent yooyu ci ñoom laa yaakaaree lépp loo xam mooy sama ndéy haa huddan xaatiman saa isatin wa makanatin tawakkal xaqan himtiyaa solba saa it kii mooy kan Hudan moy jemi njub khati moy moy khati sa isatin moy borom wega wegu mooy borom trang wa ma kandid ki moy borom eh, borom daraja tawakkala wakiluna haqqan ci deug deug dëgg dëgg te muhammad sol ba saayir ki nga moy ni borom gis-gis ki moy borom gis-gis lahaa lahu man yaha man yanha muhiban sababatan wa yarhamu sabban yawma yawma balwa laxaa yal na rëbb alaaw yàlla laxaa yal na sori alaaw yàlla kan man képp koo xam ne yan xaa ma ngay xaaye muy ban ki bëgg yonent bi muy laay xaaye bëgg yonent bi saaba batan koo xam ne am na mbëggee koo xam ne saaba ko saaba ba nu mu jaar ci mooy mbëggee ko ci saaba ba ku ci àgg nga ne ko li nga def yonent bi dafa arab yàlla na la yàlla soril yow way yarhamu yàlla na yërëm saban koo xamante ni dafa sopp yow ma balwaa saraayiri bis bi nga xamante ni ca la ñu nattu secret gis nga yow ma tuub laa saraayiru xam nga dañ ko firi feeñal dëgg la waaye nag balwaa la bàyyi indi moom balwaa mooy firi ndaxte balwaa bal tuub mooy balwaa ndaxte saraayiri bu ñu leen nattoo luy na luy nattu saraayiri damaa ba ngeen teelu mbaax de bu ngeen toog la ba ngeen ba may liggéey yow ma balwaa saraayiri xam nga eh, dégg nga seetlu xam nga saraayiri day dikki nekkoon mooy xàqaayiqi bay nekkee seen xàqiqee ñu fol leen ci xàq yi dikki majaas nekk seen patron xamaloon nag léegi yow xàqiqa nga tey nag majaas mooy sa patron ndax leen bañ dikkee mën nañoo xenu doj ak as euh, asamaan suuf ak doj bañ mën xenu ka ko xen du mooy nit nit da xàq la nit majaas la te tey nag nit mi nag moom moo moo moo nekk nag ah waqar waqar xanaa jëmewul jàllu xëy bi tax ta xaddaa yi seetal kon nag mbooloo jàllu xëy bi yëpp tey waqat tama fati yéen dama di waqatan rijaalu jamee rijaalu xëy bi taxta rijaalu xëy bi nag mooy saraay yi mooy ñoom nañ mooy saraay yi dañ leen nattu na nattoo tey waaye nag wala axirata xëy laka na moo tax nag natt boo xam ne balaa an xasana ndaxte fii kër moo gën a neex fële fa nekkee lu ñu xam yow kenn te jaam nga fay nekk de ndax di ba sa jaam xàq fii nga dikk nag ñu ne la yow yaa moom lépp luy na biiw kii yow lépp luy wilaaya kii ñu kon nag wala axirata xëy laka kon ne fii mën a dàqal sa fële de waaye nag balaa nga xam fii moom bala nga mën a jot da nga rek ci ëttuma jaas bi moo tax ne bàyyi ne xaqiqatan xaqiqatan xaqiqatan xaqaaq xataa sa xaqaay kulaa majaasan bi nisbati ilaa mësët na mësët bii nag ñoom ñëpp dañuy dikk majaas ci seen mësët bii nag kon nag bàyyi na bu ñu demee bañ yow ma tublal yow ma balal ba saraay yi yëpp yow yaaw yaay yërëmikat bi li àll xawaa nahjun qawimun wa inna nii درجت عليه آه، للوقوت الاواخر دغ واخ باي باي مني لي اهل الهوى نيال نبرم بغيلي ناجون غير قيون كين كون نغا بغي يونت بنا افام يون و جار سم بغيل نيوم برم بغيل ام نه جو قيون واي و انني نكمن ابراهيم نس درجت دما ليم عليه دما جيل نك سما يون ليم ba kañ lil te ba ca waxtu al ba ci waxtu mujj wa mooy waxtu mujj damaa bàyyi ba ëwlu passé aakalu passé saa da saa yu ba ca mujj ga laa génn nag man sama mbëggeel bi nag war ko gars yi ñu ne kii raw nañu mbëggeel bii la dencoon moo tax gi nga fi ne ni boo mën a boo fekkee ne yaa ngi ji nga bandi bu ndaw bandi bu mag buy xeex bandi bu ndaw du ko mën na ko maanaam maanaam da koy wan ndànk rek i yow damay gaañ yow da ngay nagam ba mu bër ba yaakaar ne kilifa ne kii mu jaay dool rek mu dóor ko mu kii bàyyi ñes dama bàyyi borom mbëggeel yi dikk dikk yëpp wan ne may ponkal may ponkal may ponkal rek mu ne man dama ko denc nag lii lu ko ti ca waxta al awaqir mujjee ci laa ko denc nag waaye yàlla mu jël ko nag yàlla yàlla may nañu saas bañ ci yàlla boole ci baxoon xaalal Mustafa al Muxtaar yi aska salaat yi salaatan biha tuha jameel kabair xaalal Mustafa yenn ka xam ne moo ne tànnoon ca ah, lu jiitu Adam almuxtaar kañ tànn ci diggante mbindéef yi aska salaat yi la gën a sedd ci salaatam ba salaatan salaat bokk na bi ay tam tumaa lu ñuy évancé jamiho kabayri mboolem suñu bàkkaar yu rëy yi ñu defoon am yàlla balal mi yàlla ñu ko yàlla defal bàkkaar yu rëy yi ñu defoon yëpp ci yàlla nekk ca Moustapha Mokhtar julli goo xam ne bu ñu ko defee rek ñu évancé nañ yooyu asa asa asa ilu rabban jalla tafrija kurbati bi yum ni rasulullahi asama jaabiri usaa ilu maa ngay laaj laajee raban borom jàll bàgg naa lan lan ko laaj bay tafrija kurbati mu teggil ma samay njàqare teggil ñu ñun suñ njàqare ñi ngi koy ñaan tafrija kurbati ndaxte njàqare dafa nekk ay xeeti njàqare bëgg dara jotoo ko am aju jure te xamoon noo koy faje loolu yëpp ci njàqare la yàlla na yàlla teggil ñu suñ njàqare yëpp bi yim ne rasulullah ci barke ndawal laawli aasami jaabiri te xam ne moo gën a ponkal ci ñiy jàng dam-dam ah yal nañu yàlla jàngal dam-dam yépp lu tax li ashada fi dunia wa uxra wa artaqi ila sarwatin taadaaduha bil qanaasiri bil qanaasiri lu tax li ashada pour ma texe wala ñun ñu texe ci ñaan bokk nañ ñaan gi fi dunia ci fii wa uxra ak fële yàlla nañ yàlla may li pour ñu am ñaari texe fii ak fële wa artaqi ak ma yéeg ñu yéeg ila sarwatin ci ay njoloxtoon boo xamante ni taadaaduha boo koy compte bil xannaasir yaa ngay compte ba àgg ci baaraam bu ndaw maanaam juróomi xadaraat yi nga xamante ni mooy tolloog juróomi baaraam yi ma yéeg ci ba gën a kawe ci xadaraat yi ah loola bëgg makiinan la daa rahmaani sil arshida iman ah wali wali nasli ah daana kullu hasair makiinan may ku am daraja la daa rahmaan fa rahmaan ku am daraja sil arsi rahmaan mi nga xam ne mooy borom arsi daa iman faw nag wali am naa wali nasli ak li nga xamante ni mooy samay gaay sama njur daana bu la neexee wa daana wàcce seen bopp kulul xasaayri mboolem géeño yi ñu wàcc lii ñeel ma wali nasli ak sama sama njur toll am na mboolem li yàlla bind ñu wàcc ci sama kanam ak li nga xam ne mooy sama naslu sama njur mi ak li ngértoo yëpp bu ñu ne ngérte rek yëpp ci la bokk ñëpp ak naan bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi ko am am na ñu am bénéfice bàyyi biir ak bàyyi biti ak ñoo xam ne moom benn ba lañ am waaye benn ba yal na yàlla boole bi nga xam ne bu ñu ko bokk bu ñu ko bokkee rek ba da bàyyi bàyyi yesusu bilaadallaahi amri amri haadiyan bi hadi kitaabin aw bi saxrin sawaqin aw bi sajiri sawajiri yesusu mu fondement bilaadallaahi réew laaw njub goo xamante am li xaat yan ma nekk xaat yi ki jumit ma fondement li nga xam ne mooy réewu laaw bi fondement boo xam ne damay koy dem ma nekk gindeeku bi xaat yi kitaabin ñu ñu ñu boo ne jumu téere bi la aw bi sajiri sawaa jiri wala tere ñi nga xam ne war sajara sajaral ma fondement ko ci tere yi nga xam ne mooy tere borom tere yi nu salli alal aadi naroomu manaa loxoo alayhi salaamun moo jibun li jawaabir xan nu salli ñu ngi dañ julli ñun ñëpp xaalal xaadi ci xaadi jubbantikat bi naroom ñu ngi sàkku man naa loo ay mayam yàlla nañ ko jot xale yi àll yi yàlla nekk soom moo jibun boo xam ne dafa li jabaa jawaabiri pour ñu jàngal suñu danga damm yàlla nañu defal salaam boo xam ne day war suñ damm damm yëpp daal di jàngoo amin yaa rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu <laughs>